Madame Baké, Awa Donc, donc avons une association c'est pour le développement et l'entraide pour les populations donc nous avons une commune en Bel-Air pour le depuis Dembe, donc 19 20 pour des consultations en ophtalmologie pour euh, les populations défavorisées comme ça si nous consultons, au moins nous avons dañuy problème mais nous am accès ci verre myope parce que dafa cher donc nous, buñ leen consulter ba paré ñu verre donc c'est moo ñu tax c'est juste pour aider les populations donc tey ñu choisir commune anne bel mais dañ koy au plan national dem ci département de Dakar dem vers tous les départements aussi de la du Sénégal. en fait nous ñëw rek yëgal euh, comme maire bi fi nekk ne ko ñun dinañ ça dépend maire bi fi nekk tey jënd na 100 tickets am ñu ko may population bi nek an bel ñi ci dess ñëw fay consulter wu après ñu may len weer donc partenariat bobu lañu am ak mairie bi donc ñun association bi ñu yor c'est juste pour aider aux popula les populations pour ñu mëna def ay soins tay ñi ngi def ci affaire oftalmo. mais bu suba dañuy def ci euh, comme médecine générale xam def def cardiologie def lenen ak lenen Wa parce que population yi dañu dañu am accès

même xale même les élèves donc tey permettre nañu à ces gens-là ñu ñëw ñu consulter leen bindal leen ay tuufaay ba pare may leen ay verre parce que am na élèves yoo xam ne dañuy nekk classe du ñu gis sax tableau bi du ñu gis sax li ñuy bind ci tableau donc ñun ñu dañ ci content parce que pour comme ñëw nañ ba aider rek donc ñun am satisfaction donc ñu ngi pousser les gens bu ñu déggee ne am ay euh, consultation yu ñuy def gratuitement ñu ñëw accès si bokk si donc faju et puis parce que duñu mëna am moyen peut-être dem ci hôpitaux yi parfois mu sori motax nak ñu né légui dañuy def commune par commune wa commune par commune nga xamné légui léegi bu dee comme ñu né Hann bel population yi né du soxla ñuy déplacer wu di dem ba ay Dakar wala fenen ak fenen dañuy gis li ñu soxla sur place wa mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu euh, population Hann village ci. consultation gratuite bi ñuy def pour bët yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen yàlla seen liggéey rafet na yàlla yàlla saxal leen ci ñi nga xam ne ñoo yore télé yàlla yàlla yàggal seen taxawaay liggéey bi ñuy liggéey ci dëkk bi yàlla yàlla barkeel ko su ko barkeel yàlla yàlla def mu fulu ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e lii nag wax dëgg yàlla doomu mosul am yara consultation gratuite bët mos fi am yéen ñi ko saxal nag mu am yàlla yàlla fay leen guddal seen fan may leen wér ak wér la ci barke Cheikh Amadou Diagne Chérif ci barke weeru koor bi gërëm nañ nag ñëpp nag population bi ñëpp ak ñi fi toog ñoo Ibou Niang ñoom Altine ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm dina ñaan yàlla ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi salaamaaleykum waa Yaraax maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam maa ngi tudd Altine Sow Le responsable FSDBJ Anne Beller air aussi la troisième adjointe au maire de la commune de Anne alors nous avons dañu amoon initiative def juste un geste symbolique pour satisfaire la population de Anne parce qu'en ce moment nous xam nañ ne gis-gisu nit ñi dafa xaw doy war alors ñu avons nak en partenariat avec une association. des association bo xamante bi dañu jóg pour jappalé askan wi alors nous nous associé woon ak pour indiquer leen en Bel Air juste pour appeler la population. en partenariat avec la commune le maire a vraiment jàpp na ci parce que jënd na ticket yi may la population. parce que nous avons ni population bi des nañu lunettes des consultation aussi c'était gratuit. mais jël na daal loxoom dugal ko ci jënd ticket yi may ko population bi muy geste vraiment boo xam ni ñu ngi ko ci gërëm di ko ci sant ci tuuru population bi yëpp. parce que ñun en tant que autorité aussi population bi lañ fi nekkal parce que bu ñu gisee dara xam ne lii intérêt population bi la dañ ciy dugg donc programme bi mu ngi démarré depuis démb 19 ak tey 20 mai. programme bi nag démb moom macha allah nit ñi ñëw nañu parce que xam nañ ni li ñuy def nii c'est un geste dañ ko def juste pour satisfaire la population. De ce programme on avait 283 personnes qui ont ont nous alors sur les 283 may nañu ay 250 Nous ci des à peu près 30 et quelques nous leen bindal ordonnance pour faire def traitement pendant un mois qu'on a fait bu ñu les spécialistes suivre leen muy loo xamante de bi tamit lu am solo la parce que liñ qui gën a rafetlu rek même spécialistes yi nga fait ñun li ñu doon séntu si ñoom defal nañu ko parce que nekkul ne forcément da nga war a consulter wu rek pour am lunette donc la preuve mooy li nga xam ne def nañ ko parce que 283 bu ñu consulter woo sur les 283 250 am lunette ñeneen ñi def suivi médical donc ce qui veut dire que ni lañ ci doon séntu am nañ ko ci muy satisfaction totale ñu am ci mbégte bu baax ndax population bi nga xam ne ñun loolu lañ doon xaar ci ñoom ñoom it delloon nañu li nga xam ne mooy njukkal bi parce que xam nañ ne ñun ñoom lañ doon liggéeyal ñoom lañ fi nekkal ñoom tam génn nañu vraiment démb en masse di nuyu aussi sama càmmiñ yi nga xamante ne bi vraiment ñoom laa àndal si liggéey bi muy Ibou bi nga xamante ne moom mu ngi liggéeyee Gaspard Camara nekk tamit président comité de santé bu euh, district bu Hann village bi donc vraiment moom aussi depuis démb ba léegi mu ngi ñëw di ñu jàppale parce que loolu rek la ñu soxla ñun ñëpp ñoo bokk donc population bi moo ñu tax a jóg bu ñu gisee ni lii satisfaction population bi la dañ ciy dem ba jeex ci tàkk ñu ngi nuyu aussi le médecin district bu en village muy Omar Sow ñu koy remercier bu baax ak le docteur si bi nga xamanteni bi mo nek Gaspar Camara parce que mom mo ñu jox autorisation bi ba ñu mën a am possibilité def lii donc ñom ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant parce que yombalal nañu ñu liggéey bi parce que xamnañ ni population bi ñoo ñu tax mais biñu ñu ci ñom aussi dañ ñu koy yombalal donc ñom aussi ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm sama càmmiñ yi ñom Momar ñinga ñom Boga Diop

population bi amnañu satisfaction donc ñun loolu lañ ci doon jublu ñu ngi gërëm bu baax di gërëm aussi directeur d'école yi di gërëm ñëpp parce que moom tamit depuis démb ba léegi yombalal nañu ko parce que bi ñu ñëwee expliquer ko abal nañu ay salle de classe mais terewul tamit enseignants yëpp ñëw nañu jàpp si ñëw di ñu di ñu suivre xam nga consulté wu nañu mais tamit ñu ngi ci ànd ak ñun accompagne ñu depuis démb ba léegi donc vraiment daal ñu ngi gërëm toute la population de Hann Bel-Air ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm le maire ñu ngi gërëm le conseil municipal ñu ngi gërëm ñëpp dal imam délégué de quartier jeunesse bi aussi ñu ngi leen di gërëm suñu yaay yi ñëpp dal jàpp nañ si vraiment satisfaction totale daal macha allah.